kon lu ñu mën a def rek mooy ànd diisoo di waxtaan ànd diisoo ci lépp ànd diisoo ci wàllu politique ànd diisoo ci wàllu koom-koom ànd diisoo ci lépp lu yite réew mi lu ñu war a jubbanti ñu jubbanti ko ba nga xam ni daal euh, xeex yi ñuy xaar yépp nga xam ne réew mi yépp lay xaar muy ci wàllu économie muy ci wàllu social mu ci wàllu développement mu ci xeex yooyu yëpp réew mi gañe ko ci jàmm ndax nag ci la jàmm xaj soo xoolee li ñu wër xool euh, réew mi amul jàmm nu muy mel xool situation yenn réew yi doomun rekk lu dul sant yàlla di ñaan jàmm jàmm ji ñu war ko dox ñun ñépp nag du góor du jigéen du mag du ndaw sëriñ si kilifa diine yi kilifa aada yi église bi eh, chef religieux musulman yi ñépp ñoo ci war a jàpp jàmm nag état bi itam en premier chef ndax eh, état mooy lu jiitu lu war a dox jàmm wax jàmm indi jàmm di ñaan politique yi ñun ñépp xool nu ñuy waxee xool nu ñuy jëfee ba pare nag eh, réew mi état bi ah, boole ñëpp boot xam ni lii yëpp dafay jeex ci waxtaan lay mujj réew mi ñu nga xam ni daal eh, président Senghor bàyyi na ko fi eh, président de la république Abdou Diouf bàyyi ko fi président Abdoulaye Wade bàyyi ko fi di yàlla rek mu continuer ba mag yi itam bàyyi ko fi ak jàmm keneen ñëw bàyyi ko fi ak jàmm parce que àddina moom lu dul jeex amul. kon tey bésu jàmm la bésu ñaan jàmm bésu def jàmm ah di jàpp ni xëy na ñun ñëpp dinañ ko dox comme ça élection yi di ñëw jaar ci jàmm ku gañe gañe ak jàmm kuñ gañe itam nga nangu ni gañe nañ ñu avancé. nuyu euh, mbokku